non il va continuer à parler y' a pas de souci. non Charles. bàyyi eh. ma la wax. dam dam li ma bëgg wax rek mooy que dañu wóolu ay nit na leen wan leen ñu yoon bi ñu ànd ak ñoom ñi won yoon bi ñu ne ñu bu ñu yeggee ci yoon bi dinañ leen jox lii ak laa liñ ñu war a jox yegg siwul a vu effectivement que parce xam nga en fait bugguma wax ni la communication sur le ceeb la c'est pas les sénégalais ñoo mettre l'accent sur le ceeb état bi moo communiquer sur le ceeb état bi moo jël communication bi teg ko ci kaw ceeb bi sénégalais yi aussi teg seen bët si ceeb bi c'est aussi simple que sa du leneen et maintenant ñi génn way ñu ne way il ne faut pas que je ne demande ñaanuma violence kenn bëggu ko ci réew c'est-à-dire il faut que ñu accepter tout à l'heure waa ji euh, grand bi mu ngi wax ni. Jibi Ndiaye Jibi mu ngi wax ni kontaan na ci transport yi ubbi xam nga assouplir oui xëy na baax na mais assouplir aussi c'est reconnaître que dañuy faciliter la propagation du virus parce que ku mënul jël ay dispositions yi war ci école bi ba enseignants yi nga xamante ne yóbbu nañ leen ñu dem ba foofu rendre compte ni que am nañ virus bi alors que on aurait du savoir lu tax ces enseignants n'ont pas été testés à Dakar avant ñuy dem ñu bàyyi ba ñu yegg ñu testé leen foofu. ku mënul jël les disposition ci ay école mënoo ko jël ci transport interurbain bi il ne faut pas que ngeen di xool aussi xaalis kese bi ngeen war a am. Mm. parce que li ci bu fekkee foofu rek bu fekkee foofu rek la ñuy la ñuy xool mbir mbir yi mbir yi mënul sotti. Mm. on dañu nekk ci situation boo xamante ne c'est une situation assez compliqué où en fait on nous dit que épicentre wu feebar bi Ndakaaru la soixante quinze pour cent soixante quinze pour cent de des cas fii la amee biir Ndakaaru mais nañu xool qu'est-ce quest qu'on règle au niveau de Dakar parce que bu feebar bi duggee ci biir réew yi ci biir ci biir àll bi àll yi amul ay yoon amul ay clinique amul ay dispensaire amul dara waa àll bi la wax le transport interurbain bi nar a nar nar a indil jafe-jafe comme tey nu ñu amee ay enseignants il ne faut même pas stigmatiser parce que aussi enseignants yi bëgg jàngale bëgg doxal moom moo tax ñu dem mais on aurait quand même on aurait quand xool enseignants yi fii pour man pour man il y des questions sur lesquelles état bi daf ci waroon continuer garder fermeté comme ban pour man. il y a des questions sur lesquelles état bi daf ci waroon garder ferme mu teg ah, garder ferme. on n'est pas d'accord hmm? sa position la xam yow yow mën na yow yow on peut te reconnaître lu la nit contre contre mën na d'accord ne euh, quand même euh, am na ñu lay déglu parce que euh, avec Y'en a marre quand même vous avez pu avoir. benn combat bu ngeen combattre ba am légitimité am baat donc mun nañ la jàppee comme modèle référence jeunesse bi Mais aujourd'hui, dans ce combat, quelles que soient les défaillances de l'État, la posture républicain li muy laaj si ku mu ku ne si ñun mooy nga teg loolu si suuf conscientiser bi peuple bi ba nga xam ne l'intérêt général li mu war a nekk rek mooy ñu sauver population yi. Mm-hmm. bu ñu paree l'heure du bilan dina ñëw. ak défaillance bu mun di am ñu mun a taxaw ñu teg si baaraam mais ñu taxaw moment bi fi ñu toll nii quand des gens yoo xam ne. c'est vrai l'émission peut-être mun na justifier nga wax sa position moo tax man ma mën la ko nangul la mais je dis bu bu fekkee c'est sur le terrain géejuwaay ba nga dëkk beneen posture nga war a am bu newul posture bi mm-hmm. parce que comme ni ma wax xeex bi bi mu jógee la première personne du pays bi jóg boobu état décrété wul résilience c'est Youssou Ndour dem ministère de la santé yóbbu fa ay matériel et produits et ainsi de suite et pourtant mënoon na ko si bañ a fekk je connais énormément d'hommes politique yoo xam ne avant même le président de la république di def plan de résilience am dem nañu def ay dons man Fatick ba ma dëkk woote fa nga laajte la ma fa def ak su may morom ak ñeneen ak ñeneen est-ce que war naa toog man tey di xaar président sant ma lii wala tama xam ne danger bi feebar bi mun na ma dal dal suma njaboot yóbbu suma yaay yóbbu suma papa yóbbu keneen. donc man bu ma munee jàppale waa waay sax du ma xool loolu damay dem jàppale leen. ndax virus ba mun na fa jógee mm-hmm. law ba Fatick lor sumay mbokk. donc je pense que aujourd'hui mm-hmm. c'est cette lecture la que les gens doivent avoir maintenant comme ni ma wax bu ñu jógee ci lii parce que comme li nga wax même ñun ñii ragal nañ ci mesures yi ñu jël loolu ñun duñu ay. ragal ragal nañu parce que tey. xamuñu liy ñëw dañuy ñaan yàlla rek parce que transporteurs yi ñu ngi grève mais oto yi depuis quand lañ ñu toog dawuñu y a un est-ce que defar nañu pneu yi est-ce que leneen ak leneen kenn xamul suba loolu beneen problème la dinañ ko laaj mi nga xam ni transporteur la Charles <laughs> oh, alors on spécule désormais sur la <laughs> stratégie Papis su dee comprendre naa la toi tu es plus sur la stratégie de naka lañ ko gérer naka lañ ko nar a gérer ok mais am na tamit lu am le débat que pose Malal nee na finalement c'est comme on dirait un choix entre le le virus ou la faim mais mais mais juste pour pour pour. ne euh, pas s'il te plaît Charles bon c'est Charles qui ne veut pas parler ah. c'est lui qui donne à chaque fois temps de parole. waaw Charles il faut le Charles confinement verbal. Euh, exactement confinement verbal bi nga merci Pape Djibril la formule. Charles s'est confiné non non damay damay juste rek damay rajouter rek par rapport may métti. Hmm. man dafa quoi. parce que hmm. des choses se passent. selon yow sa posture ak sa position. Mhm. nga ne Sénégal nii la war a taxawee loo xamante ne ça n'existe nulle part ailleurs yow nga ne moo Sénégal dans lequel moi j'habite nii la war a def kii bu ko deful lii aayul or boo remonter ce qu'on appelle VAR nga xool tuuti dans tes speech dans tes déclarations tu as toujours convoqué l'exemplarité la référence de certains pays qui sont aujourd'hui à genoux ils sont dans le balbutiement pour la gestion de cette crise ils dañuy làmbatu comme tout le monde yow nga toog fi dans un pays qui a 16 millions pauvre comme le Sénégal nga ne non il faut qu'on soit des extraterrestres sur la gestion je pense que c'est c'est malhonnête mhm. quelque part non beneen bi beneen bi mooy ici am na y a des aujourd'hui ce qui les intéresse li ma gën a métti encore der mhm. ceeb ak diw la ñuy gën a wax que ay nit ñu dee mhm. je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ah, les gens s'appesantissent sur des choses yoo xamante mais c' est deuxième ressort par rapport à la vie humaine amul prix bakkan. kilifa réew mi moo foto. man waxuma euh, kilifa bi malal man tous les Sénégalais et pour moi-même il ne na ma président Macky Sall. du débat de tous les Sénégalais. comment on vit comment on fonctionne notre approche par rapport à cette pandémie li perte. ëpp solo foofu lu ñu lu ñu dese et je dis encore hmm? si demain affaire on va se comporter on va dire qu'on parce que oui il y, y a pas de Covid hmm? et parce que on restera une république je pense. bon Charles Seck moom fi Bouba pour man. Euh, hmm. pour man ñi ngi ça fait mois que ñuy wax ci mbir mi. Euh, wax naa ko fi sax la dernière fois ne mën nga am benn position tey demain mu changé. soit da ngay honnête nga comprendre que ni position bi ma amoon démb manque de maîtrise li fi waa ji wax kenn mënu ci wax téere ci coronavirus manque de maîtrise bi ma am ci ni mbir mi di changé moo tax du ma dinaa am honnêteté reconnaître que nii peut-être que fii lay xoole te te je pense que c'est valable pour nous tous kenn du fi kenn du fi yàlla du fi yonent bi mën nga am benn jugement demee mu changé et je pense que loolu il faut ñu nangul ko ñëpp mais je pense que dañu toll foo xam ne il faut ñu ñu proposer quelque chose il faut qu'on propose quelque chose faut par exemple il faut que ñu bu peut-être bu ñu nekkee ci débat ñu d'accord moo tax ma laaj Thierno Bocoum ñu la ñu d'accord ne est-ce que yóbbu par exemple le couvre-feu jëlee ko 21 heures yóbbu ko 23 heures est-ce que c'est pertinent oui ou non parce que man bu nit amee position par rapport à une décision qui ay été prise bu moment boobu dinañ mën a discuter mais suñu bu ñu sànnee nii rek day day est-ce que ñun tous tous on est capable de dire tey ku nekk si ñun jékki-jékki ne man cette décision là approuvé naa ko bëgg naa ko wala bëgguma ko xam nga moment boobu bu ñu xamee yow fi nga situé wu dinañ mën a peut-être débattre mais je pense ñu toll nii lenn la ñu mënul wax moom mooy que feebar bi wàññeeku na parce que tey jii nii li ñu li ñu am li ñu testé ci positif defe naa bi ñu commencé ba léegi amuñ am nañ ko amuñu ko. surtout sur les cas communautaires waaw communautaire non xam nga man moo tax. moo tax ma ne jamais eu autant ma ne ma jamono jamono proposition. jamono pour ñun ñëpp ah, dafa dafa jot. aujourd'hui dañuy set ñu ne nga dem guerre perte benn nit mu dee ñaari soldat yaa ma dégg ak nga perte 137 soldats xam nga bokkul. Hmm. léegi munoo teg tey jii nii au jour d'aujourd'hui le nombre yi gën a bëri ah mais ñun ñuy demee beneen sens bi c'est-à-dire que nombre bi ñu ngi gën a bëri c'est-à-dire que affaire baa ngi yéeg mais ñun ñuy dem vers le contraire moom mooy que comme si affaire baa ngi wàcc y une contradiction dans dans nous tous ce qu'on ni ñuy il faut ñu nangu ko teg ci kii bi quoi sa à dire que qu'est-ce qui explique ah Dakar am 75 pour cent des cas que ñuy dem beneen sens bi est-ce que on doit être honnête pour dire que on doit pas aller dans l'autre sens parce que bu ñu nee bu ñu dem ci beneen sens bi ça veut dire que dañuy convoquer ñu ralentir économie bi ñu bañ a jàngi ñu bañ a def lii bañ def lii mais je pense qu'il faut que nous nous tous les Sénégalais soit clairs de sur ce qu'ils veulent xam nga lu ma la lan mooy est-ce que tey jii nii dañu toll foo xam ne dañuy wàcc wala dañu yéeg léegi bu ñuy yéeg ñun ñu ñuy dellu foo xam ne kii est-ce que c'est loolu constitué na benn danger pour les sénégalais dans wala les africains dans les deux ou trois mois xam nga temps yële passé waa ah, xaw ma Nations Unies am na ku fi génnoon ne Afrique dinañu am peut-être ay millions de morts. c'est le SG lui waaw waaw léegi après ñu bëri génn ne way convoquer ce ce discours panafricain là moi je me suis ma ne le problème du tontu bi def de sorte que. loolu bañ a am. te mhm. loolu pour man dafa am solo est-ce que aujourd'hui nous on s'est posé la question à savoir fii ak trois mois. fan la ñu war a mën a toll. loo xam ne dafa yéeg mais je pense que la question boobu moo war a njëkk am solo ñu bu moment boobu bu jotee ñu seet lan la ñuy. Mm-hmm. pri lan yan priorité la ñu am fan la ñuy ubbi ak fan la ñuy tëj mais boo gisee nii mu demee nii cest à que nga nekk ab ab ab sénégalais. heureusement que je pense que le virus là n'est pas aussi virulent loolu laa yaakaar boobu parce que ñi mu sonal peut bëriwul bëri yu ëpp yooyu en tout cas ci jeunesse beeg yooyu mm-hmm. peut-être que ni mu ni doole bu mu amoon euh, bu mu am France peut-être amu ko fii peut-être que dëkk bi nu mu demee la xaw ma nu mu mënti demee mais li am solo ba am solo mooy tey jii nii il faut ñu poser la question sur cette contradiction te ko loolu ñun du état bi rek ñun ñëpp en tant que sénégalais pourquoi on on monte et nous on descend. Mm-hmm. on assouplit alors que alors que le, le nombre ah, kii pour man c'est la question essentielle loolu lañu ñu war a laaj fu ñu fan la ñuy jëm. Mm. parce que xam nga woy nañu ubbi nit yi dañu sonn oui mais sa mooy en même bu ñu ubbee fekk affaire bi gën a kaw mooy que ñun ñun ñun ñëpp dañuy dem vers une situation boo xam ne peut-être que dafay empirer wu cest à que peut-être que waxoon naa ko fi ngeen kii bu ñu demee nii bu ñu continuer nii su waay cinquante mille personnes boo ko amee ñu feebar Sénégal lan ngay wax et je pèse mes mots on parle de quatre mille personnes su ñu demee nii on va avoir cinquante mille malades en tout cas positif xaw ma ndax dañuy tëdd à ce rythme dañ koy am maintenant bu ñu amee cinquante mille euh, malades comment nan lañ koy gérer benn pour tëj pour di terminer bañ a monopoliser parole <laughs> aujourd'hui <laughs> il y a une chose qui est claire <laughs> il y a beaucoup de am na bëri nit yaa ngi mooy seetaan am na ñu bëri ñu feebar amatuñu place ñu ngi leen di faj seen kër yi ça veut dire que situation bi déjà commencé na commencé na catastrophique est-ce que du ñu honnête ñu teg lépp ci table bi ñu xam ni ñu d'accord ni fii ñuy dem nii incha allah bu ñu dof doflul fii ak 2 mois 3 mois su fekkee ni feebar bi disparaître da ngay am 50 000 malades je pense que c'est ça qu'on doit poser sur la table.